su ko defee nag Sénégal moom Sénégal lu tëxët la ah yàlla ko fi def Sénégal lu tëxët la ah xanaa di leen ñaanal rekk ak di leen digal léeg nga gis ko dal ci seen kaw dal ci seen kaw dal ci seen kaw waaye fekk na yàlla dal ci kaw waa kër yonent bi lu ëpp loolu asa rabbuhu in tallaqakunna ah an yubaddilahu azwajan xayran minkunna muslimatin muminatin qanitatin tayyibatin abidatin sayihatin thayyibatin wa abkara seetal loolu loolu mën na yar jigéen ñépp te complot ba Sidna Aïcha moo ko jëkke ni leen yonent bi lu sew rekk la bañ kon nag nanu ko def lu sew ndax mu mer seetal loolu ñu def ko ko mu mer ba gedd dem yoonam moom yonent bi te ñoom xamuñu ni waa ñu waa ñu yonent bi sax yàlla ko amee waa ñu yonent bi yàlla ko amee yonent bi dal ci yàlla dal ci seen kaw ni leen bu leen fasewoon tey ci ngeen di xam ni jigéen ñu leen ëpp yiw a ngi fi seetal loolu ni mu mettee te ñoom booba defe nañ ni c'est fini ñu ngi ci kaw ñépp yàlla won leen ni bu leen fase woon tey ngeen xam ni gor yaa nga ca néeg yi waaw te ñoo leen ëpp yiw fuuf ñoo leen gën a gëm ñoo leen gën a yaru ñoo leen rekk ñu jóge ci rus rus rus rus yàlla wàññee ko ci seen bàyyi ni leen yaru leen seen doom yu jigéen yi qu anfusakum wa ahlikum naara yaru leen seen doom yu jigéen yi ah tax ndeysaan si naay si ñemewul yar waaye terewul papaam woo ko rek añ gannaaw gi cawa cawa caw mu ni dootuma ko dem mukk ñette desit ñu indi caw rek caw rek seetal loolu boobu yar mu wóor leen ni fii ba ba àddunay tukki fii ba ba àddunay tukki nit ñaa koy jàng ci alquran loolu moo leen metti mais pexe amul bi ci des mooy bi mu leen wax ni góor ñépp ay malaat lañ kon nag ku ci wax ak góor na nga dëgëral sa làmmiñ te gàttal ko waaye ku ci wax ak góor di lemmi lemmi ba muy tëb dal ci sa kaw dafay bett parce que góor ñi c'est des malades ils sont seetal loolu yàlla ko wax ni waa kër yonent bi bu ñu wax ak góor ñi nañu dëgëral seen làmmiñ te gàttal wax ci parce que góor ñépp dañu feebar yii ñaar doy na yar yii ñaar doy na yar te looloo am parce que yàlla xam moo bind tabiya xam na li nekk am na góor ñoo xam ne boo leen regejoo rek ñu àl benn yoon mooy doxaankat yu mag yi kooku lool rek la du leneen yàlla nag ni waa kër yonent bi di leen dëgëral seen kàddu te di leen gàttal seen wax waaye di lemm lemm nii ak ji regejoog di def yu kenn xamul Uh-huh. ah li mu sëf yonent bi dafa diis moo tax fokk moo koy protéger protéger waañam protéger waañam waañam surtout ndeysaan te yonent bi dafa yiw nanguwul lu sew nanguwu ko mukk te loolu jigéen ñu ko xam ci moom dañ ko koy tooñe buñ ko bëggee tappaase rek foofu lañ koy tappaase ñëw di koy indil yu yu kenn xamul ñam sax buñ ko koy tegal teg ko ci façon boo xam ne dafay tax mu gedd seetal loolu seetal loolu eh, waaye terewul njëggal gaa ngi fi terewul ne jaa ngi fi terewul itam baax ga